jumaa ji ak taxawaay bi nga xamante ni sëriñ bi taxaw na ko ci ngeen ñëw teewe ko ban yëg-yëg ngeen ci am asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ginnaaw bu nu sant yàlla julli seen bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi sant sëriñ Tuubaa bu baax a baax am rek te it teew gi nga xam ne Cheikh Mouhamadul Mountakha moo def liggéey bu rëy bi liggéeyal ko lislaam ci toolu sëriñ Tuubaa def ko it ci pàkk bi nga xamee ne pàkk bu sëriñ bi fonkoon la pàkk la it bu sëriñ bi doon bàyyi xel ngir soxna su tedd si nekk kon day mel ne liggéey bi liggéey bu rëy la boo xam ne ndëgum lislaam la waaye nag ndëgum sëñ Tuubaa la te ndëgum sëñ Tuubaa mooy ndëgum lislaam jëf ju rëy la yoo xam ne nii jëfal na ko njabootu sëñ Tuubaa yëpp jëfal ko jullit yëpp kon li nga xam ne moom lañ koy ñaanal rek mooy yàlla wéral ko te gën a guddal aw fanam ba li nga xamee ne bëgg na koo liggéeyal sëriñ bi ci tool bi lislaam lépp mu def ko ni mu ko bëggee ci sago ak kattan ak tal ndax eh, ku ne xam ne yéeneem moom Cheikh Modou Moustapha ku ne xam ne yitteem yéeneem rëy na yitteem kawe na te lépp génnul sëriñ bi ba bu ñu nee sëriñ bi nag mooy lislaam rek kon li warat ci murid yëpp mooy ñaanal ko day topp ci ginnaawam di jëfe ndigalam yëpp di wattandi ko ay tereem ndax ay ndigalam mooy ndigali sëriñ bi ndax lu sëriñ bi bëggoon rek mooy bëgg-bëggam euh, lu fa sëriñ bi tegoon tànkam it fa la teg tànkam kon ñu ngi sant bu baax tey gërëm jërë ngeen jëf salaamaaleykum rahmatulah. jërëjëf Mbacke am na solo alhamdulilah waaw waaw <laughs> sëñ Mountakha. waaw Mbacke Mbaye. waaw ñoo ngi jaar baax a baax ci yàlla sëñ Mountakha bisimilah ah